société leen di may seen revue de presse dal leen ak jàmm ci yëglekaay yi Vox ngay xam ne ji nag lu jëm ci élection présidentielle ñu doon amal fii ci réew Sénégal yéene kaay bi ne waa conseil constitutionnel jamono ji nag ña ngay officialiser nag ndam li nga xam ne Bassirou Diomaye Faye am na ko bu ñu sukkandikoo ci bi la yëglekaay nag amul benn contestation boo xam ne rek déposé nañu ko ca conseil constitutionnel juróom-ñaari sage ji nag fi mu toll nii la ñuy xaar rek mooy ñaari fan ci weeru juin ngir Bassirou Diomaye Faye prestation de serment le regard daal di dikk ne conseil constitutionnel kay ña ngay victoire bu Bassirou Diomaye Faye ñoom saa jooyee nag daal dinañuy publier ci aljuma ji nag lu jëm ci résultat définitif yi nga xam ne rek moom mooy di caa topp Amadou Ba di yegsi ci deuxième place bi ak mu di ay résultats définitifs yi nga xam ne rek haute juridiction bi daal dinañu koy fësal mu tukkee ci élection présidentielle yi ñu doon amal jamono ji nag wér na ne Bassirou Diomaye Faye mooy cinquième président de la république bu Sénégal tribune yëglekaay ne conseil constitutionnel nag dëggal na ko niki démb ginnaaw ay résultat yoo xam ne rek daat na koy publier jamono ji nag la ñuy xaar mooy prestation de serment bi nga xam ne rek war na ko amalee ci centre Abdou Diouf bu jam ñaajoo ci teewaayu ay njiitu réew lu jëm ci prestation de serment boobee nag Guirassy mi nga xam ne rek moo nekkoon directeur de campagne coalition Diomaye président ma ngay xam ne ci biir nag bu sañoon cérémonie de prestation de serment bi nag dañu koy amalee ca conseil constitutionnel ndax fi mu toll nii nag askan wi bokk nañu ak ñun victoire bi daal di jubilé ba noppi kon nag li ñuy xaar ci ñun rek mooy ñu daal di tàmbali liggéey bi loolee nag la Bassirou Diomaye Faye daal di xamal kii di Guirassy Le Quotidien yëglekaay dellu si tey jii nag ci nomination yi nga xam ne rek am na ci kaw magistrature bi nag ab décret boo xam ne rek tukkee na ci président Macky Sall mu di Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ne rek mooy premier président bu cour suprême Amadou Seydi nekk procureur di pôle jour ne président Macky Sall kay ma ngay amal ay nomination yu mu jëm Abdoulaye Ndiaye nag moom la tabb def ko mu nekk nag njiital cour suprême bu yees daal di fay wuutu kii di Siré Ali mi nga xam ne rek dafa war a dem retraite Sud Quotidien daal di dellu si ba tey ci lu jëm ci nomination yooyee nga xam ne rek amal nañ ko ca conseil supérieur de la magistrature yéenekaay bi di peeko les derniers coups de Macky Sall Guy Marius Sagna ci biir yëglekaay bi nag ma ngay xupp ba nag di menacer direct news daal di dikk nag samp ab laaj ni lan yu ni mel nag lan la Macky Sall di mijote jamono ji ndax mbir yi mu xam ne rek parti boobee mu ngi koy dund jamono ji rawatina seenub ëllëg ginnaaw ba ñu amee lu toll ci 1,56 pour cent ci élection présidentielle yi yéenekaay bi ne Khalifa Sall jamono ji nag mi ngi ci yoonu retraite mbirum Ndiaga Diouf ak éligibilité bu Barthélémy Diaz bokk na ci li nga xam ne rek yéenekaay bi àdduna ci ginnaaw Khalifa Sall nag kan moo fi fi mën a incarner lii di leadership loolee la yëglekaay bi di laaj ginnaaw bu ndox tuuroo nag an baax ca des nañu defar waat rek te daal di waajal nag élection législative yi nekk suñu kanam leen fa yëglekaay dellu si ci njabootug Mohamed Diop ñoom nag ña ngay chargé police bu Sénégal démb ci seen janok way xibaar yi ña ngay xam ne nag ne police bi nag ba muy ñëw ci Mohamed Diop dañoo excité wonewuñ benn identité ginnaaw gi nag la ñu leen dóor dóor yu metti bañ ca noppee nag lañ leen daal di embarqué nag ca commissariat bu Pikine foofee ndaw yu bëri xoqatal nañ leen fan mbir yi nag faaw ñu daal di koy leeral leneen loo xam ne rek yéenekaay bi di l'observateur leeral na ko bokk na ci xeex bi nga xam ne rek moo amoon démb ci diggante Ousmane Yara ak Omar saw yéenekaay bi nag ne mbir yi ma nga xewee ca Palais moom mii di Omar saw ne Ousmane Yara daf koo saaga mu daal di koy dóor kurpañ mu ne tépp ci suuf ca Kolda la ñuy jeexalee yéenekaay bi l'observateur di xam ne ne nag ñaari ndaw yoo xam ne rek seeni at ci benn la tollu jàpp ñeent ñoom la ñu fekk ñu daal di ñàkk seen bakkan ci benn woto mbokk yi léegi nañu fas yéeglekaay jàmm ak jàmm. Société